jërëjëf euh, Anna gan gi euh, bi la yoon mu ñëw fekk si ñu ci studio bi kon di madame abi Diallo bokk ci convergence des cadres républicains CCR ñu ngi lay nuyu madame Diallo Euh, maa ngi lay fay euh, faatu donc euh, di leen nuyu di nuyu télé téléspectateur yi ñuy déglu mm-hmm. auditeurs yi ñuy déglu fii ak dans la diaspora mm-hmm. di nuyu sa équipe di nuyu tamit ku moom réew mi borom kër gi borom kër gi président Mbagnick Diop mm-hmm. sama càmmiñ sama xarit ma yàggoon ci moom trop mu formé ma nag macha allah ci leadership ah. di bëggee ci invitation bi di ci duggee bisimillahi rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulilahi rabbil alamin allah uh-huh, uh-huh. ñuy ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax na am njëriñ ci askan bi uh-huh, jërëjëf amiin jërëjëf am nañu mbégte itam dalal la ci matinalu Rewmi FM tey alors ñu tàmbalee waxtaan bi ak euh, ay laaj yoo xam ni dafa xaw a nduru tuuma bàyyeekoo ci Hadjibou Soumaré muy wax si euh, koppar yu takku ëpp juróom-ñaari milliards yu mu njoxtu ne président Macky Sall daf koo jox Marine Le Pen bi mu ñëwee Sénégal loolu nekk ay mbir yoo xam ne yu garaaw la mën a itam tey xel surtout ci xaalisu réew mi nuñ ko yoree loo ciy tontu. waaw loolu dinaa ci sawar tontu comme ni nga ko waxee dafa teeyee xel hmm. ku logique normalement warul sax nangu li Hadjibou Soumaré wax. Mm. parce que moom tamit euh, nekkoon na fi premier ministre ñu yaakaar ne xam na état nu muy fonctionner euh, mu nekkoon tamit homme d'état donc am na yenn yoo xam ne nit waru ko jël mm. jëmale ko ci jullit moromam di ko tuumal en fait parce que lii ñun ñi nekk ndaw président Macky Sall dañoo yaakaar ne lii da ko tuumal. donc ci opposition la nekk donc ñuy ñoom dañuy yëngatu chaque jour rek. Mm. pour tuumal président pour dé dérouter lu muy nekk di liggéey parce que président ci liggéey la nekk donc ñoom nag comme amuñu programme bu ñu proposé Sénégalais yi amuñu projet bu ñuy proposé Sénégalais yi ñoom ñu dëkk ci matin au soir dans la manipulation dans la désinformation et dans de fausses informations. Mm. donc moom. su dee am na lu muy proposé Sénégalais yi na leen proposé wala mu toog ak président su dee vraiment dafa bëgg intérêt Sénégal euh, yokkute Sénégal moom war na toog ak président liggéey ak moom moo gën muy jëmale yu mel nii parce que Marine Marine Le Pen tamit dafa nekk président de parti comme président nu mu nekkee président de parti te loolu xel xalaatu ko président di jël alal bu takk bu mel nii di ko jox Marine Le Pen <laughs> xanaa Marine Le Pen kon moom dafa ñëwoon pour woyaan mm-hmm. Marine Le dafa ñëwoon tournée. donc ñëwul woon pour sakku ndimbal ci président Macky Sall. mais est-ce que tam du du le fait que saa yu ñu waxee dara rek am ñu ko xaw a gëm euh, li ko waral nekkul xëy na yorin wi ak scandale yi fii am te du am benn suite bi ci mujjee di xaalisu Covid 19 bi ba léegi déggaguñ si benn euh, njeexital bu bu enquête bi am ak yeneen ak yeneen i dossier est-ce que tam jotul yorin wi ngeen xoolaat ko ci seen boor. xam nga sànq maa ngi koy wax ci suñu émission en français bi Euh, xam nga temps justice nekkul temps politique. Hmm. justice dafa am ah, temps donc bi ngeen jël na dafa xaw a yàgg na. non no non Fatou. soo xoolee soo xoolee rapport bi bu mu génnee. Hmm. dañ ko jégleel procureur. procureur tamit du jékki-jékki rek convoqué nii ay nit. Hmm. dafa am yoon fu mu jaar justice dafa am yoon fu mu jaar. sénégalais sax soo porté plainte doo jëkki jëkki rek ñu toj nit ki. dañ koy convoqué. dina am ñu déglu ko. Mm-hmm. ñu am enquête ñu def ko garde à vue ñu yóbbu ko defeere ko procureur su ko attee noonu la su ko bàyyi noon la donc. justice noonu lay doxee donc dès l'instant que rapport bi génn na mu am ay quelques autorité yu ñu épinglé dans le cadre de la Covid 19 mm. te justice mu ngi ciy def mu ciy def yoonam parce que temps yee génnee nañu ay benn benn document boo xam ne ñu ngi ñu épinglé woon digg war na leen entendre donc nañu bàyyi. Hmm. nañu bàyyi di yëngal dëkk bi di ne justice deful liggéeyam justice day def liggéeyam mu nekk man mu nekk keneen justice su waroo tegu sa kaw day tegu sa kaw. léegi nañu bàyyi ñoo ñooñu suñu leen convoqué digg. Hmm. ba digg ah, dégg leen su jar su jaree ñu ñu defeere leen nañ leen defeere su jaree ñu def leen garde à vue. Hmm. nañ leen def garde à vue. su jaree tamit lu ñu leen tuumal am na. su dee tamit lu ñu leen tuumal am na ñoom am nañu sañ-sañ ne d'accord nañ li ñu leen tuumal am nañu léegi ñun dañuy delloo xaalis bi wala dañuy def médiation financière loolu am na hmm. dëkk bi nañ nañu bàyyi di sosal nit ñi di sosal justice di sosal président de la république di sosal même askan ñi hmm. parce que léeg nga dégg ñuy tuumal citoyen boo xam ne deful dara. Hmm. donc loolu nañ ko bàyyi. man nee naa dëkk bi nañu bàyyi mu dal. dëkk bi hmm. nañ ko bàyyi mu dal encore une fois Fatou. Hmm. waxtu bi daf ñoo xaw a tuuti euh, ñu wax ci wàllu politique ba tey réew mi tey ku ne politique sa xel si tension bi fi nekk lay dem diggante opposition pouvoir donte am na dal gu ñu seetlu fan yi ñu bari nag jàpp ni jot na ñu fexe ñaari wàll yooyu toog waxtaan dialogue bi ñuy ruumandaat yow loo ci xalaat. Euh, xam nga Sénégal comme ni ma ko waxee sànq dafa nekk un pays de paix un pays de dialogue mm. un pays lu tax ma ne un pays de paix Sénégal yi jàmm moo fi musa am te loolu moo fi mës a wéy jàmm moo fi mës am mm. te moo fi mës a wéy lu tax ma wax c'est un pays de dialogue donc gis nañ que y a eu les les les les les assises nationales dialogue des assises nationales mu amoon opposition mu amoon parti au pouvoir mu amoon société civile mm. ñu tënk benn document génne seen rapport loolu ñu nu ngi nekk di ko dérouler su loolu weesoo tamit sénégalais yëpp gis nañu te naw nañ ko président de la république mu oo ñëpp. Mhm. pale ba sot seet xool nan la ñuy liggéey Sénégal loolu du du du du chef d'état lépp ñoo koy def. Mhm. nañu bàyyi président nitu paix la nitu jàmm la. Mhm. woo na fii parti d'opposition yëpp. seen président yëpp woo na gisoon nañ fi défilé palais ñii di dugg di génn ñii di dugg pendant la Covid mu ne nañu bàyyi coow bi yëpp ñu ñëw xool Sénégalais yi nan la ñuy mujjee ci Covid bi. gis nañu aussi Sénégal ba mu jëlee Coupe d'Afrique gis nañu. lënkaloo bu amoon entre président mm. ak parti d'opposition yëpp ñu bëri seen yaram dafa daw. réew mi ñëpp àndoon. ñu bëri dañ seen yaram dafa daw. Mm. parce que dañoo ne sport dajale na ñëpp. Mm. te boobu tamit gis nañu président ñëpp la waxtaanal nañu bàyyi coow bu bëri bi bàyyi xiiroo bi bàyyi ŋaayoo bi ñu ñëw liggéey Sénégal parce que tamit dafa jot ñuy liggéey dëkk bi. dafa jot ñuy liggéey dëkk bi jàppale président ci vision am pour le Sénégal émergent donc président ci lay yeewoo ci lay ndëkkee ci lay añee ci lay reere mm. moom sénégalais yi ñoo ko ñor keneen ñoru ko donc nañu bàyyi coow bu bëri bi di wax ay affaire kon daal dialogue bi mën naa nekk. dialogue kay mun a nekk. Mm. président bañul balul dialogue de c'est un c'est un chef d'état qui a tendu toujours la mais à l'opposition à la société civile même au Sénégalais lambda. mais dialogue ci contexte bi ñu jàpp ne day bëgg a faagaagal ay adversaire am tam est-ce dina sotti. non faagaagal amul xam nga tamit état état su buggee faagaagal faatu dina la faagaagal état. ah gis nañ fi kaawu Karim ak Khalifa. no loolu du moom moo leen faagaagal. Mm. dañ leen tuumaloon ci ay mal gouvernance ci ay détourné ay fonds. Hmm. ñu won ñu ñu ñu wax leen nañu génnee ay preuves. nit ki suñu la tuumalee dara indo ay preuve donc ça veut dire que ñu la tuumal dafa am te président du moo leen tuumal ils ont été épinglés par des rapports te président du moom mooy rédiger rapport président dañu dafa am ñu ñu fa nekk ñoo xam ne constitution bi moo leen toog la foofu te encore une fois na sénégalais yi xam ne ne que ñu toog IGE ak ñeneen ak ñeneen du président moo leen toogal constitution bi moo ne IGE dafa war a am cour de comptes dafa am te ñooñu ay magistrat ñoo ko ñoo ñoo fa toog. Mm. ak ay kàngam ñoo fa toog. Mm. donc rakku président nekku fa doomu président nekku fa xaritu président nekku fa donc ñooñu suñu defee rapport mu épinglé A ou B. Mm. donc ñooñu suñu amee ay preuves. duñ leen jàpp. sauf que dañu jàpp ne nag justice loxo président génnu ci. non non non non loolu loolu loolu loolu gëwuma ko. xam nga tamit léeg ñu ne euh, euh, France roko euh, France justice loxo président génnu fa. xam nga dans un état su ñu waxee état rek. ak démocratie hmm. il y a trois pouvoirs pouvoir judiciaire pouvoir législatif ak pouvoir exécutif hmm. ku nekk a ngi tëral sa liggéey ku nekk yaa ngi ci sa yoon liggéey hmm. parce que tey gëm naa ne tey pouvoir législatif mënul interférer wu ci judiciaire bi pouvoir exécutif mënul insérer wu ci pouvoir législatif ak ci pouvoir judiciaire la moo jiite conseil supérieur de la magistrature te loolu magistrat yi seen bopp ñoo ko yàgg a ñaaw wax ne day tax justice faatu euh, loolu c'est partout dans le monde partout nga wax ne que France le président le la magistrature euh, le conseil supérieur de la magistrature président amu ci amu ci amu ci bëtam waaye melul ni Sénégal nga xam ne moo ko jiite ministre de la justice ba nekk vice président c'est c'est la constitution qui la qui la constitution bi moo ko ko may hmm. mu nekk Euh, président conseil supérieur de la magistrature de la magistrature euh, garde des sceaux nekk vice président loolu constitution bi moo ko ko may mm. suñu voté woon tey constitution ñu ne léegi président am ama mënatul nekk président président euh, conseil supérieur de la magistrature daf ko nekk forces armées mm. forces armées déglu fi ma wax la forces moom mooy forces armées parce que c'est lui le chef de l'État un chef de l'État yàlla moo la jox pouvoir yooyu constitution moo la jox pouvoir mhm. loolu man mënuma ci dara yow mënoo ci dara keneen mhm. mënu ci dara léegi suñu demee nag peut-être ba ay jëmmi at ay at yi di ñëw ci mhm. kanam suñu waxee ne loolu yëpp dañ ko war a euh, partager ñu ñu changer ko mais moom yàlla moo ko ko may te loolu nañ ko ko nangul ok ñu wax si léegi opposition bi nga xam ne moo ngi euh, annoncé un cadre élargi maanaam kuréel gu yaatoo yaatoo ñuy xeex nag lépp lu ñu jàpp ne jaaduwul euh, te nguur gi nekkee ko jamono ji gannaaw ay wujju ngeen ci wàllu politique gis nañu sax ay temps bu ñuy defee conférence de presse ñi la a Euh, certainement benn riposte bu jugee si yéen waa majorité présidentielle bi par rapport a cadre de l'opposition boobu ñuy annoncé lan lan ngeen di tontoo ñooñu. xam nga xam nga comme ni may wax Sénégal Sénégal dafa neex ba nga xam ne ku jóg rek ne damay créer sama parti. Hmm. ku jóg ne damay bokk ci coalition ku nekk ku jóg ne damay créer cadre élargi donc ñooñu may nañ leen cër boobu daal mais ñun coalition lañ nekk coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. te suñu président moo ko jiitee mooy son excellence le président Macky Sall. Hmm. te coalition boobu depuis 2012 mu ngi exister xam nga loolu mosul am. Hmm. dans l'histoire du Sénégal. que une coalition mu yàggee noonu ci at yooyu mosoo ci dégg xiiro mosoo ci dégg ŋaayo mosoo ci dëgg ay defante. te chaque jour ñu ne tey lay tas. loolu moom nangul nañ la te du tas nag. parce que ku ko jiite kilifa la. te su waxee nit ñi dinañ xam ne wax na. donc du waxantu du nekk di sànni ay xeer wala di tontonte ay. ay kilifa yoo xam ne amuñu benn valeur. Hmm. donc loolu li nga wax nii cadre élargi boobu. Hmm. ñu ko ñu ko jiitee wala ñu ko wootee. Hmm. ñooñu opposition lañ te ñooñu am nañ ci droit jox nañ leen droit boobu. mais ñoom seen cadre boobu du taxaw. parce que gis nañ fi coalition yeewu tey ñu ngi nekk di tas. ku nekk a ngi dem beraat sa daara à côté donc lu dul dëgg du yàgg. seen cadre boobu ñu fa nekk ay kam-ngam lañu. ay ay chef de parti lañu te bokkoon nañ ci gouvernement yu passé wala ñu ngi bokk ci ay gouvernement ba léegi wala ñu ngi nekk di liggéey ak gouvernement ba léegi donc ñooñu nañ def seen coalition seen concertation élargie lu ngeen di tontoo yéen xoolal ñun coalition Benno Bokk Yaakaar la ñu am mm. mooy suñu coalition unique ñun ñun ay ndaw président lañu mm. amuñu lu ñu leen di tontu nañu beral seen seen cadre élargi bi mm-hmm. ñun ñu continuer di liggéey ak président dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ñun déggoo ma ne la président amul jot di tontante. Mhm. ñun ay ndawam amuñu jot di tontante. Mhm. mais dëkk bi toll nañ tey foo xam ne lu fi amoon du fi amaat. loolu moom lëkk ko na ko ñëpp xam. Mhm. li woon woon ni na. lu ñu doon woote di toj toj ay bagages yu jàmbur di toj ay magasin jàmbur wala di di di di dóor wala di di rey ay doomu jàmbur loolu amatul. loolu moom ñu ko ñëpp xamale te ñoom foog naa commencé ñu nand ne que li fi amoon mars deux mille vingt et du fi amaat. ñoo ngi ci période boobu sax di ko fàttali ko alors laaj bu mujj bi si la ñuy jëm mooy weeru jigéen ñi ñu nekk loolu yokkal sabab ñu invité la ndax euh, dañuy sot borom kër gee ñu njëkk sotle ci jigéen ñi macha allah alors mars la ñu nekk madame Abi Diallo ñu war a waxtaanee nag surtout euh, jigéen ñi ak condition yi ñuy dundee ci réew mi euh, surtout ñu nekk ci biir réew mi le monde rural tey nooy nattee peut-être seen condition ak lan nga jàpp ni war nañ koo gën a ñoŋal gën koo yokk bu ko defee seen jàmm gën a law Fatou en tant que mère de famille en tant que jigéen. Mm-hmm. maa ngi ñaanal bépp jigéen bi nekk Sénégal ak dans la diaspora un bon mois de mars un bon mois de journée. Mm-hmm. de la femme parce que weer bi yëpp ñun la ko yàlla jagleel ñun la ko organisme internationaux yi jagleel ñu war ko féetee mooy le 8 mars. Mm-hmm. donc man damay ne jigéen chaque jour dañ koy sargal. su dee jigéen chaque jour war na am journée internationale di 8 mars. donc euh, su loolu weesoo ñu ngi jëm ci ñun suñu assise nationale. Hmm. mooy le 7 mars incha allah rabbi au grand théâtre donc euh, président moo ko war a présider ak euh, madame la ministre de la femme de la famille et de la protection des enfants docteur Fatou Diané ñu koy nuy di ko sargal di wax liggéey bu am solo bu muy nekk di liggéey depuis ñu nommé ko à ce ministère la donc ñuy woo jigéen ñëpp sans distinction de parti sans appartenance politique donc président dafa ne journée 17 mars bi jigéen ñëpp ñoo war a teewee. ndax ndeer moo tax ngeen tànn seen mars voilà donc talaatay ndeer donc jigéen ñëpp ñoo. mais mais mais ban jeexital lay am ci condition wu jigéen ñi. donc donc loolu. loolu tamit c'est une grande avancée que jigéen ñëpp dajaloo sans parti sans coloration politique ñu def suñuy assise thème boo cette année c'est entrepreneuriat féminin et autonomisation. Mhm. dans la dans le digital. est-ce que jigéen ñi seen condition amélioré wu na ci réew mi. donc très sincèrement man man en tant que euh, <laughs> toujours damay faral di wax ne que man waa waa àll laa. Mhm. doomu àll laa parce que juddoo ma Dakar Goudir laa juddoo ma gisoon condition yu jigéen ñi doon liggéey. ak condition yu ñuy liggéeyee tey. Hmm. donc loolu tamit ñu koy nangul ñu war koo nangul président de la république bu mu toogee ba léegi autonomisation des femmes lay woote bu muy toogee ba léegi day ne jigéen ñi nekk ci ci ci ci tool yi di béy jigéen ñi nekk di wol jigéen ñi nekk di loolu na dagg jigéen ñi di taal sondel na dagg donc ñu gis ne dans tous ces programme et projet jigéen la def au devant parce que xam ne ne jigéen moo yor kër jigéen moo yor njaboot donc soo demee tey ci àll bi mm. ñu yoroon seen kii di béy ak loxo mm. loolu amatul ay machine la ñu doon dem root yi loolu amatul tey foo dem am na ay forage mm. tey moom sénégal sénégalais mënuñu jooy ndox mënuñu jooy ne dañuy dañuy root am na dëkk yu amul ndox ba tey de non nañu amul courant ba tey Sédhiou boo mi jugee Sédhiou na ñoo xam ne amuñu courant déggoo ma ne la lu mu def ci Sédhiou dans le cadre de l'électrification rurale loolu musul am président lu mu nekk di électrifier Sénégal mm. loolu musul am te ñu koy nangul tamit ay kàngam ñu nekkoon parti parti beneen parti mm. ay kàngam ñu nekkoon beneen parti nangul ko ne ko lu mu liggéey en dix ans ñoom def nañu quarante ans au pouvoir mm. liggéeyuñu ko loolu tamit Sénégalais yi dañ ko war a xam parce que président ci liggéey la nekk nekkul ci ay politique tout le temps tous les jours nekkul tamit di ay defante wala ay di kii soo xoolee tey bourse familiale yi vingt cinq mille la nekkoon ñu rok yokk ko def ko trente cinq mille ñu def ay cash transfert yow dangay xool jigéen joo xam ne jëkkëram rek mooy liggéey moom mm. liggéeyul woon donc ñëpp ci moom la ñu weer woon ci mm. borom kër gi la ñu weer woon mm-hmm. léegi yow trente cinq mille mun nga ci fayal say doom école mm. mun nga ci économiser temps yee génnee nañu benn ay reportage jigéen ñoo xam ne ci bourse familiale yi lañ def ressource de revenu ñu ciy liggéey di ci amaat encore valeur ajouté pour jàppale seen borom kër mm-hmm. loolu tamit ñu war koo nangul président su loolu weesoo ñu ngi xool DER lu muy financé FONGIP lu muy financé Promise lu muy financé ak yeneen organisme yu président def ci Sénégal gi pour bëpp jigéen bu Sénégal tout confondu tout par tout parti confondu opposition ak ñëpp la ci yemale. Mm. moom déjà wax wax na ne que ministre de la femme bu toog nii na liggéey ak jigéen ñëpp sans parti politique. Mm. sans coloration politique donc loolu tamit ñu ko ñu ko koy rafetlu. parce que wane na na ko moom moom moo uuf jigéen ñëpp moo leen jur moom mooy suñu càmmiñ mooy mooy mooy mooy suñu yaakaar tamit. Mm, parce que tamit nañ ko nangul aussi que président lu mu fu mu jëlee Sénégal. Mm. ak fu ko indi tey ak fu mu ko bëgg a yóbbali à l'horizon cinq loolu nañ ko nangul ne que am na ay jéego yu dayoo. su loolu weesoo 2024 la mandat di jeex de waxtu bi daf na. yàllaa ko xam. Euh. yàllaa ko xam 2024 yaa ngi wax 2035 ba da bi déjà. non parce que PSE bi. PSE bi à horizon 2035. waaw l'état c'est une continuité donc ñun ba léegi ñu ngi ci PSE bi. d'accord waaw parce que la e day toog wala du toogaat. Hmm. loolu mbiru yàlla la. parce que ni ma koy waxee yàlla mun na la ne sax yow Fatou yow yaay nekk président 2024. Hmm. donc ñun ay jullit lañu. te ñu bokk ak am aussi ak suñuy naataango chrétien. Mm-hmm. ñu gëm ñu gëm mm-hmm. yàlla. Mm-hmm. donc yàlla lu mu tudd. dina am donc nañu nañu bàyyi ci xel. ñu bañ a indi fitna ci dëkk bi. tamit jiital toujours la paix. Mhm. jàmm ci lépp xaj lu jàmm amul. Mhm. dara du ko am dara du sotti si yàlla nañu yàlla defal jàmm. defal ko bopp mboolem waxtu bi dab nañu lool euh, madame Aby Diallo waaye ñu ngi lay gërëm amoon mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM fàttali ni yaa ngi bokk ci convergence des cadres républicains CCR jërëjëf. républicain républicain CCR.